ñëw maintenant par rapport au groupe parlementaire groupe parlementaire da nga ne on ne peut pas on ne parle le même langage je voudrais vraiment éclaircir parce que barki démb wax naa ci benn rajo parce que on a parlé de Abdoulaye xam nga sama groupe parlementaire may mun a quatre-vingts députés la mhm. benn député bu benn député bu parti socialiste muy Abdoulaye Wilane moo wax ne woy communiqué bi signé wuñ ko nangam nangam d'accord ci am na ci sañ-sañ waaye dama la bëgg a wax ne le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar tey la gën a compact gis nga Abdoulaye Wilane bi ngay wax bi ñuy voté résolution bi créé commission d'enquête parlementaire mi ngi ci salle bi. voté na ko bi ñuy voté la loi mi ngi ci salle bi voté na ko donc lépp loo xamante ne nii le partie socialiste. ñun koy def ci biir groupe parlementaire bi amul dara loo xamante ne nii indi nañ ci une objection donc le groupe parlementaire tey la gën a booloo pour revenir encore parce que j'ai vu dans la presse te wax naa ko ci benn rajo barki dem que Malick Diop ñu ne woy d'accord yu ci woon nekk fa woon je voudrais éclaircir que Malick Diop vice-président assemblée nationale bi ñuy dem en réunion de bureau pour recevabilité de la loi mi nga fa woon bokk na ci ñi ko voté bi ñuy voté li nga xamante ne nii moom mooy résolution commission d'enquête parlementaire bi dañoo def réunion groupe parlementaire lui il a pris la parole au nom de l'AFP wax la position de la l'AFP ba pare defendre ko voté ko bi ñu demee en plénière c'est vrai bi ñuy voté nekk foofu mais man mi nga xam ne maay président groupe parlementaire bi ci télé lay waxee Malick envoyé na ma message envoyé ma son certificat médical d'indisponibilité de trois jours ne dafa tawat ne ma bàyyil naa la délégation de vote voter la loi donc le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar tey la gën a suulewu mais xam nga Malick tey gën a non déglu rek tey la gën a nekk benn et ce groupe aujourd'hui est plus que uni autour de son leader qui le président de la République qui est le président de la majorité présidentielle pour l'accompagner ci li nga xamante ne moom la def ci dañoo def une analyse subjective moom jëlul responsabilité comme Ablaye Wilane moom bind waaw mais bind ci lan communiqué non non bind ci communiqué bi engage puis wu PS wuy ma xaaral déglu li ma bind engagé wul PS. mais Abdoulaye Wilane c'est le porte-parole du du du du. parti socialiste waaw dama ne la engagé wul. parti socialiste waaw na parti socialiste génn weddi. man maay porte-parole adjoint bu APR. c'est pas tout ce que je dis qui l'engage l'APR. il, il parle euh, d'un document aux allures de fake news moom Abdoulaye Wilane mu ne. que ce communiqué dont nous savons qu'il émane d'individus de notre coalition Benno Bokk Yaakaar et de collègues siégeant à l'Assemblée nationale et membres de notre groupe parlementaire est une forfaiture innommable que les auteurs assument leur posture publiquement en signant ce faux communiqué indigne d'honorable député mots sont lourds et très forts xam nga nit dafay am retenu nit day dal gis nga jamono ji il faut que les gens reviennent à la raison parce que gis nga nit mënoo ànd ak moom may mun a pendant douze ans il y a ñu bari ñi nga xamante nii ñi ngi nekk di wax tey wala ñuy gesticuler am na loo xamante nii daawuñu ko def daawuñu ko wax xam nga lan laa bëgg nit ñi revenir à la raison te xam ne gis nga nit boo àndeek moom da ngay gore tey gore démb gore suba